voilà donc bii 6 sixième édition bi donc euh, en tant que euh, coordonnatrice euh, de divers groupements féminins voilà de beaucoup de groupements féminins il dafa dogal ba li nga xam ne moom mooy cëslaayu mbotay yi solidarité euh mom lañuy woté ba taxna na événement bo xamné ñëw dañuy jàppalante ci suñu biir du yëfu kenn suñu yëf la ñun ñëpp parce que comme ni ma ko waxee sànq ci njëlbeen rek euh, mbootaay base bi moom mooy ñu jàppalante d'abord donc jàppalante boobu nag man dafa nekk sama itte nekk sa lu ma ñor euh, ba tax na euh, fépp fu ñu toog ak jigéen ñi rek dañuy boole suñu buy ak suñu daqaar tey solidarité bii may def du financement bu ma ne ci diw la jóge tey ñun ñii en tant que membre ci mbootaay yii ma la limal ñun ñooy def chaque semaine ñu participer suñu 250 foog naa 250 boobu yàgg naa koy wax ci sama ay interview euh, ne moom la ñuy participer chaque semaine pour ne pas alourdir les femmes parce que boo laajtee femme fin du mois nga ne ko 1000 francs wala 1500 wala nga ne ko 2000 xëy na dina jafe ci moom pour mu génnee ko waaye boo ko laajtee ne ko semaine bu nekk sànnil sa juróom fukk euh, ñu boole ko ba bés bu mel nii ñëw ñu jënd si loo xam ne daf ñuy dimbale ci suñu biir kër yi ndax li waral lii mooy dinañu dimbalante ci suñu biir ñun jigéen waaye itam dinañu won suñu borom kër yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy bàyyi ñuy déplacé wu di dem si tuur yi di dem si mbootaay yi ñu won leen ne ñun lii ñu bokk amal nañu njëriñ nekkul loo xam ne tey ay caaxaan la wala ay ay foo voilà donc c'est du sérieux suñu mbootaay yi ñuy ànd euh, du mbumbaay ak ak rumbaay moom moo ñuy boole

dañoo bëgg ñëpp bokk ku ku néew doole ak ku néewul doole ku ko mën ak ku ko mënul pour ñëpp mun a maase bokk moo tax ñu ne juróom fukk par semaine yaakaar naa ne euh, coono bi métti na lool ci jigéen ñi waaye am nañ yaakaar lu métti métti métti semaine bi war ngaa mën a génnee juróom fukki dërëm ci sa weccet wala ci sa dépense wala ci li nga xam ne moom la sa borom kër di wala ci li nga xam ne yow yaa ngi koy liggéey la sa bopp sax mun koo làq ndax làq tey moo ñu may lii donc on peut dire que lii yëpp ci éducation financière la jóge parce que tey bu ñu doon loon làq tey xëy na dina doon métti ci ñun pour ñu débloquer un montant 2 millions tey mun ko euh, def ci ay ci ay ci ay produits alimentaires euh, ngir jàppale ko ci kii bi képp koo xam ne daal yaa ngi doon respecté parce que boo xoolee Fafej ak Dame Dévoué dañoo nekk ay mbootaay yoo xam ne dañoo décentralisé wu au niveau des quartiers quartier bu nekk am nga sa leketu bopp donc ci biir natt leket yooyu ci la ñu dugal juróom fukk ya su ko defee tey benn femme du yëg ne tey mu ngi doon natt sax juróom fukk donc lii tey dafay mel ni dañ leen ko may alors que mayuñ len ko xeyna amna lo na loo euh, lay doon du ci ñak parce que souvent buñu amé valeur ben montant euh, té suñu budget dépassé montant bi dañuy xol ci suñu bonne volonté ci suñu partenaire ñoo xam peut-être mën nañ ñoo jàppale waye nak comme aduna bi mom dafa metti fim mu toll nii gis nañ ne ren partenaire yi réagiruñu waye man en tant que coordinatrice man m'a débloqué une enveloppe de 300000 tek ko ci li nga xam mom lañu amone donc ñu complété ko ngir mëna def achat euh, achat yi nga xamné def nañ ko je peux dire que on a débloqué une enveloppe de 2 millions bi ñu defee euh, budget euh, cotisation yi nga xamné ko on a eu 600 000 maintenant euh, à travers ma modeste personne à travers une euh, une de nos partenaires bu joxé 100 000 ak man sama 300 muy 400 000 ci avons ko complété muy 1 million ñu def li mais li ngay wax né wàññi bi ñu wax ci dëkk bi ñun sentiruñu ko. Budé amna aussi ñu koy lire à travers les réseaux sociaux ñun sentiruñu euh, euh wàññi bi parce que tout est cher li ñu def fi amul lenn lo xamné lu ci yomb la donc pour dire que tay bo xolé saaku bi nga xamné euh, femme bu nek dina ko ñibé tay tay bu ko estimer mom ci bopam en tant que femme xam li nek ci marché bi dina xam valeur bi nga xamné mom mo nek ci biir sac bi né c'est c'est strictement supérieur à, à, à, au montant que nous avons cotisé. dañu mettre en place euh, une coopérative des femmes productrices de fatigue donc mu nekk coopérative boo euh, c'est au niveau national donc euh, di gunge jigéen la coopérative bi composition am 30 femmes qui yi nga xam nous dañuy dañuy produire dañuy transformer donc jot def euh, choix bi ba installer une coopérative au niveau de fatigue. donc 30 femmes yi nga xam ne ñoom ñoo ko composé kenn ku la nga produire donc yow yaa koy bëgg produire au niveau de toutes les boutiques du Sénégal parce que avons mettre en place des boutiques au niveau des communes euh, à travers le Sénégal donc nous avons mis en place des yokkute lañ ci voilà donc coopérative mettre en place pour que euh, ñi xam ne aussi euh, à travers Fafej nous ngi am ay yeneen buntu yo xam ñu ngi ubbeeku aussi li ñuy wax DINFEL directoire national des femmes en élevage donc euh, Bobo, c'est un directoire national mais au niveau de Fatick DIRFEL li ñuy wax directoire régional des femmes euh, en élevage donc Bobo aussi nous ngi nekk diko mettre en place donc di wo bép femmes, bi nga xamné yow ya nga yëngatu ci élevage élevage lu mu mënti doon que nga jëm ma contacter ñu mis la mettre ci euh, directoire Bobo donc dañoo am ay livret yoo xam ne euh, c' est au prix de 3000 francs livret boo xam ne euh, moom mooy wane ne yaa ngi ci biir euh, kii bi directoire bi ah su ko defee nag ñu commencé jàppale ñu ñi bu dee ñuy yar xar dañ leen di jox ay xar bu dee ñuy yar mbaam xuux dañ leen di jox ay mbaam bu dee ay ginaar dañ leen di jàppale ay béy dañ leen di jox donc dañ leen di accompagner directoire national bi dañ leen di accompagner bu barke démb la ñu ma yebal ci benn atelier au niveau du conseil départemental euh, bo xamné vraiment ñu ngi doon jang ci li nga xamné mom moy walum euh, énergie euh, solaire donc di gëna encourager jigéen ñi rek di gën sensibiliser ne leen ñu gëna farlu gëna a parce que yef yi nak jàppale amna problème bi moy problème d'information ñun ñi nga xamné nak ñoy dem vers l'information donc bu ñu andee information bi dañoo euh euh, exécuter directement li nga xam mom moy am parce que souvent jigéen dañuy tok ne ñun dégg nañ li dégg nañ li bokkuñ ci wala woowuñ ñu ci alors que ñun ñoo ci alors que ñun à notre niveau en tant qu'ordonnatrice nous sommes en train de euh, vraiment chercher des informations par ci par là di ko wuti ji mais di ko andil jigéen ñi mais on sent que de retour jigéen ñi euh, yënguwuñu bu baax ci ci ci activités yi alors que wax dëgg yàlla buñ ci yënguwul aussi fi bëgg a yegg duñ fa yegg moo ci appel bi aussi la bokk ñuy lancer jigéen jigéen nous ñu gourgourlo a góorgóorlu képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci dara nga bañ ko budé nguna ngunab ginaar ñaari ginaar wala ñetti ginaar rek mais engage toi ci directoire bobu té xamné directoire bi lepp lo xamné luñu jot la yow da nga ci am droit mais budé dee yar xar am sa fukki xar ké am ben xaram bokku ci directoire bi ñew am fa avantage bo hamne yow mi yoré fukki xar amoko fa bobu yow dafa fekk yow pa yi ñu demander yow ya ko avancer wu. xana di wat ñep ak encore une fois parce que bo jité ay jigen yombul donc di nga togn di nga wax wax bu ëpp. Euh, di nga euh, def noo xam ne peut-être du leen neex euh, waaye di delluwaat ci femmes yi nga xam ne tey ñoo tax tey ma toog fii di leen baalu àq waaye di baalu askan wi yëpp àq di di leen baalu aussi àq ci bés bi nga xam ne ñu ngi koy jub si di ñaanal sama mbokki musulman yi parce que ñëpp xam nañ ne présidente Fafej chrétienne la euh, donc juste pour diir que man maa jiite sax euh, mbootaayu femme catholique yi donc pour wax rek ne maa ngi ñaanal sama mbokk euh, musulman yi yàlla defal leen tabaski jàmm lépp loo xam ne luñ ci ñaan la suñu borom nangu ko lépp li nga xam ne moom la ñu joxe fii aussi ñu mu yombal jigéen ñi ci seen biir kër yi ba seen borom kër yi ak seen yaay yeeg seen papa yi xam ne Euh, Fafech jógul lu dul di gunge jigéen ñi di jàppale jigéen di oyofal ndoddu jigéen moom mooy sama credo bi may jiite mbootaay jigéen ba léegi loolu mooy sama xeex comment faire pour vraiment jigéen ñi mën a allégé wu ci yenn tâches yu métti waaye ci yenn charge yu métti yi nga xam ne moom la ñu nekkee donc di ñaan rek yàlla suñu borom def képp lu ci waaye jël fii euh, mu euh, feetoo ko ci jàmm ak njabootam waaye itam ñu fekkee ko ay tabaski tabaski jàmm euh, di lancer appel nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, njiitu réew mi son excellence Bassirou Diomaye Faye ak son gouvernement di leen wax ne ñu bàyyi xel aussi mm, euh, groupement euh, féminin yi mbootaayu jigéen yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci développement ñu ngi yëngatu ci jàppalante olof Njaay dafay wax ne ndimbal na ca fekk loxol borom bu fekkee ñu ne jigéenu neen ñun ñoo defal suñu bopp lii ngir mën ko séddoo war nañoo mën a am yaakaar ne tey njiitu réew mi ak gouvernement bi tey war nañoo ñëw aussi en apport jàppale ñu tey bëggoon nañu tey heure bi bu ñu joxee soble ñu takk ay xar waxuñ ne ñu jox jigéen ñëpp waaye ñu jox ñi nga xam ne peut-être ñoom ñoo gën a néew doole ñu gën leen cee jàppale di lancer appel aussi aux femmes yi nga xam ne peut-être respecté wuñ les cotisations parce que cotisation yi bu fekkee respecté woo ko ñu bàyyi la nga jàll bu yàggee cotisation yi dootul dem donc te cotisation yooyu tey moom mooy waral tey jii ah bu bës jotee nag wax dëgg yàlla mu wàññil ñu suñuy dépense suñuy dépense bu baax a baax a baax donc di leen sant encore une fois di leen gërëm